dix heures de matin amul fenn añu timis amul fen ndékkil midi amul fenn mais ba ngeen ñëwee ba léegi lekku leen lu tàng lu sedd rek ngeen lekk ndax fa muy paree du fekk ngeen pare fa ngeen di pare dana fekk mu sedd mm-hmm. yooyu itte na képp koy def dañ koo war a sa kilifa bugaan ñëwul fekkewu ko waaye ñun ñi nekk ci waawoon ak yéen ñoo koy wax seen taxawaay mm-hmm. soo amee ay ndaw nag leen fen wax dëgg yàlla ñu jàmbaar def liggéey bu mucc ayib te li ngeen di génne ñëpp danañ fi ne di jël de ñëpp a ngi wane de mais li ngeen di génne dafay raar mhm. lu raar lay doon mhm. te it li ñuy génne dana am njëriñ ci nit ñi mhm. parce que mënoon nañ ko xumbal xumbal jaru ko nañ fexe ba ka tëdd ndakaaru kane bitim réew bëggoon a ñëw avion fees kii bëggoon ñëw amul billet kii bëggoon a ñëw feebar bu tëddee ci lalam ubbi seen TV mën a jël ci Maodo jikko yum jëriñoo hmm. jël ci yenent bi lum jëriñoo jël ci ay doomam luñ jëriñoo jël ci taalibe yi luñ jëriñoo hmm. kon seen TV gàcc nga laama sant nañu leen gërëm leen alxuraan nag nee na fekkee moo mën a seede maa yéen a nekkoon maa nit waawoon ngeen ñëw maa ànd ak yéen maa xam li fi hmm. kon bugaan sa njaboot jàmbaar lañu ñu sonn lañu lekkunu heure naanunu heure nelaw moom defuñu ko hmm. kon ñu ngi sant bu baax ci taxawaay bi yal na yàlla faj aaju yëpp bég nañu suñu kàddu gu mujj daal mooy yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi dolli sutura ci réew mi dolli teraanga ci réew mi hmm. gàmm gu ñëw yal na dàq yal nañ fekkee ji nga sànq am na maire bu am téeméeri at ak fukki ak juróom-ñeent nee na ba ko Maodoy gàmmu Louga la doon dem téeméeri at fukki at ak juróom-ñeent léegi la suuf laaj ko waa tribune bi ma leen koy wax. moo doxal boppam dox génn. guddi gee koy ni nga xam ni fu lu ne am na fi. kon jërëjëf Ndiaye. loolu moo nekkoon kàddu gi ki ko doon def mooy seen mbokk Iran Ndaw ànd ak xaritam Ndiaye Doos ñu ànd ak télévision Sen TV di leen jox li ñëw ci Tiwaawan ci ay gàmm jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf it di ci ànd beeg euh, la chaîne euh, leader.

bëgg nga jox ma ko jox ma samay juróomi téeméer. ok. xalaat moom. non daa am gars yi muy business am. damay dem mais après su ma jiyee foofu naa def si. ok dama la ñaan benn affaire gis nga Ndeye Penda. ñoom ñëpp bu ñu xam lundi mercredi sur Sen ambassadeur Cheikh beto ba jug na tey Umaroo ñew na ma la deuxième édition sargal Cheikh beto ñet guddi yi kenn dootu ko faté le 8 le 9 ak le 10 janvier le tey le 8 bi moy grand théâtre tay anniversaire u entre 10000 francs la le 9 nak yengulé xalé yéna ko mom sen cadeau ngi ni entre 2000 francs kese la ma ne 10 ba nak té la ñuy togg bernay yóbbu hôpital fan yóbbu tamit kasso camp tay son excellence ñu né Umaroo kan nga tuddee nak manam guddi gii mu né pare xana universel yu Cheikh beto tuni Serigne Khadim Ngom Idrissa a Abdoulaye Diop Dokrek Babacar Diouf ñu ne ak kan Cheikh Ibrahima Diop El Hadji Dia fonctionnaire Bambey Ibrahima Dieng transitaire Pape Keita promoteur Mambilor Mor Ishar Akasa automobile Dia Ishar mu Cheikh Béthio Serigne Bamba Faye PDG MCC Serigne Mbacké Medina muy monsieur le maire may gan commerçant Bathie Diop Top borom dina yango Bara Fall marabu Ousseynou Gueye Papa Ma Fall Babacar Ndiaye Darou Salam ñu ne waa Marène ñan la xanaa soxna Mbose Thioune soxna Aïcha Thioune Thioune Cheikh Adja Saliou Thioune soxna Mati Lo Jatu Lay Henriette Barbosa Khady Pouy Badiane Anna Thiam Fatou Bintou Sika Foire Coumba Fall xanaa ca Paris la France Oumy Jackson Tall Madeleine Pall Shakira artiste international Dieynaba Aw Ami Kolle Mbaye Oumou Kalsoum Mbuub Aram Oudé tay Oumar Oub ñi ngi ñaan yàlla ànd bi gën a neex gën a yaatu gën a barkeel. jërëjëf ñu déglu sëñ bi. dañ ko tuddee waxtaan mais cours magistral la. dafay laaj dem xalaat ci bu baax. approfondir analyse yi pour comprendre ci liñ ci war a comprendre. dafa nekk rekk baax góor gi daan fanaan fii bu masaan fanaan bu ñu xëyee ñu ñaan ñu jàpp ci waxtaanam ñu leeral ko rekk ñun waa daara ji E mu joxe ndigal pour ñu ñëw ñu guddi gi ak nabi wala ñu bokk bokk ci almursalin waaw ah. mu mel ni nag exception bi ci am ci moom rekk la dellu ak isa bnu mariam waaw ñi ci des ñépp seen cadre mu ngi ci suuf ñoom ñaar rekk lañu nangu ni seeni arwaax ruux mudaaf ilayhi la waaw waaw ah, kay waaw li ñoo tuddee complément additionné waaw yàlla jëlewul seen ruux fi mu jële ruuxu doomu aadama yi ci ruuxul am moom ci lay jële ruuxu isa bnu maryam waaye pour wane ni yonent bi nag mooy seen patron moo tax laata mu ciy bind ruuxam jismam la ci bind ba noppi waaw moo tax c'est très important ba la ngay tëkkalee nga xam lu xew Haarun dañu ko laaj yonent yàlla haaroon sa nubuwa ak nubuwa Muusa nu mu demee mu ni sama nubuwa jógewul ci yàlla ci Muusa la jóge c'est très important waaw sama nubuwa jógewul ci yàlla ci Muusa la jóge ndax wajal li waziran min ahli ba tax na نيو tax بن الناس الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا تستوي الشجر هذا له ثمر حلو مذاقته وذاك ليس له طعم ولا ثمر واو. ku ak ni la yàlla séddi moo tax yi yàlla miraase boppam jox ko yonent bi muhammad te bëgg muhammad transféré ko ci ummaam mën nañu ni yépp wasiya la ba mu des ñett ñett yooyu deyni

waaye sunu boroom miraas bi mu miraas boppam sédd ci yonent bi lim ko ci sédd comme ni ñu ko waxe woon biit moo xam sulus wala rubu la فلم يختر بحق بوبو داف ام لو نيك وصيا ام سي لوغا خامني دو وصيا دين لا بلوكو يالا جوخي mbete nga fay sa bor ba noppi boo fayul bor bi

دونتي جوخنا تي غارانتي الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان اك ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء مي افيك تو سا اقرا كما سيتي يونتي xam-xam yi ko yàlla jox yépp wa utiitu jawaami alkalim ak wa utiitu ilma al awalina wal axirin garanti yépp nga fi waaye iqra wolof wax ko wax bu simple loo doonul ndongo la doo doon sëriñ ba waaw looloy tax même alquran boo koy jàng bala mu lay won boppam def li ñu tudde télépathie pour xam ndax sa ruux correspondre na ak nuuraaniya aaya yi ngay jàng moo tax bu sa ruux correspondrul ak nuuraaniya bi ay baatam rekk la lay jox mais du la jox mahiyaam waaw loolu moo daan dal yonent bi sallallahu alayhi wa ci bu daan jiite ci jàkka dañuy dem ba ñu topp ci gannaawam xaw di tiit dafa ni baadu dara daf ko fi dab ba ñuy xaw mel ni luy jël disposition ndax dafa ni day bëgg a daanu or que fekk na aayaat yi muy jàng la ñuy jékki-jékki rek projeté ko écran ci mihrab bi muy gis lu nga xam ni te bëgg respecté ñi muy jiite waaw moo tax na ko góor gi waxe woon xam nga moom déggam ëpp na waaw ni iqra man lam yaqra fa qiraatuhu dhulmun bal naw min tamarrud mu ni ku jàngul ci tëralinu yàlla la ngay wax nit ñi du xam-xam ñaaj la ñaaj te yàlla kenn du ñaaj lu mu moom waaw dangay xaar ba mu joxal la ko boppam waaw ñaareelu yëf bi mooy aajo moo joxe garantie فإذا نعم. سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني موخيا ننتي بنيكو كيبوك دنك يو تأمل مصخ لديمك نيان نيكو بمجاخ لندخ سريو ملين waaye fekk na ñaan gi ci biir aajo bi bu dee wasiya yeyit dayn la det la te mooy wa ida qudiyat alsalaatu nag fantashiru fi lard wabtagu min fadlillah moo tax nitu yàlla ba dafa toog ak ay taalibeem di tiitaru ni leen yegg naa ca yàlla de taalibe ba ca gëna a xaw a pànk ni ko foo ko fekk yegg naa ca yàlla di tiitaru taalibe bi ni ko foo ko fekk moo am problème parce que xamul fu mu fekk yàlla taalibe bi soog ko gàgganti ni ko wa huwa maakum aynama kuntum ni ko yàlla mi nga naan yegg nga ca moom newul feneen mu ngi fii ci yow kon jarul tiitaru waaw ah. kuy seeti yàlla te newul feneen mu ngi ci yow jarul tiitaru waaw ah. tax tey tuuti baax إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فلي نصف ولعبدي نصف yàlla ni miraas naa sama alal te bokk na ci alal bi mooy julli bu sama jaam jullee ma séddale li ñu moom ci julli gi jox ko genn wàll jël genn wàll xam nga buñ ko waxee noonu rekk nga daal di kontaan di xaar ñu jox la sa chèque moo tax bi mu ko mayee yonent bi ak waa këram te yonent bi dafa ni moo koy séddale daf ko ni mënoo ko séddale parce que da ci bëgg c'est très important di yonent bi fort fort fort bëgg a séddale julli yàlla ni ko dooma ko séddaleel parce que da ci bëgg ndax wa qurratu ayni fi sola yonent bi ni ko kan moo koy séddale kon منكو فاتحة الكتاب ما يسد لجلي سي تريز امبورتون سي تريز امبورتون ما تعبوني فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى جاي جيت نيت ني سي جولي جي ني داغي ndax li ko yàlla wax ne am na ñu feebar ci biir sàppe si moo tax ngay wàññi julli gi te fekk mbindaan ma ci sa kër yaa ngi ko teg lu mu àttanul te jëmmi nekk mbindaan rekk doy na feebar kon foofu nga war a commencé faqra'u ma tayassara min al-Qur'an علم أن سيكون منكم مرضى ce fonctionnaire bi nga embauché ah dugg na ci biir aaya bi lu dul nag mu génn cadre waaw na yàlla moom lu génn cadre rek dootu ca sori waaw ah. loolooy tax ñi ñuy séddale moom na bu la nee nisfun lii wa nisfun li abdi bul defe ni ku julli rekk am nga genn wàllu julli gi parce julli gi ay darajaat la صراط الذين انعمت عليهم مي درجه بمجج جلي يا خم نك نك نجي ببسم الله الرحمن الرحيم مولاي جخ سشك bu la sa sellte mayul nga am ci bismillahi rrahmani rrahim mu jox la sa ba alhamdulillahi rabbil alamin jox la sa chèque boo amul sellte alhamdulillahi rabbil alamin jox la sa chèque nga góorgóorlu boog ba arrahmani rrahim jox la sa chèque boo amul sellite arrahmani rahim jox la sa chèque nga góorgóorlu ba maliki yow mi diin jox la sa chèque boo amul sellite boobu nga góorgóorlu ba iyaaka naabut wa iyaaka nastain jox la sa chèque du tari bi du tari bi comportement bi la te comportement bi du ci biir julli gi mais ci biti julli gi la mooy li ma leen waxoon ni sunu boroom buy jullisi ci jàkka ji julli gi ngay julli ci jàkka ji intéressé wu ko li ko intéressé mooy bi ngay ñëw foo jóge ak it boo jullee ba noppi fan nga jëm yàlla boobu rek a ko intéressé parce que mën nga jóge fu nga xam ni boo jullee yàlla du ko nangu mën nga jëm feneen fu nga xam ni boo jullee ba noppi yiw boo amoon mu faf fa jaare yàqu fokk loolu yépp nga xam ko waaw bo amul kon sell iyyaka na'budu wa iyyaka nastain jox la sa chèque nga am sell man mën a jullee ci ihdina sirat al mustaqim jox la sa chèque bo amul nak bobu le dernier te moy le cinquième moo di sirat alladhina anamta alayhim moo lay jox sa chèque et c'est le dernier waaw pour te dire na am na ñuy julli ils sont perdants parce que gis nga dañu bokk ci gayril maxdubi alayhim wala dalim duñu am chèque ndax an salatihim sahuun motax yoyu yep yëpp fay laaj nit di ci xalaat di ci waajal bopam julli taklif bokku lek julli tawhid julli taklif mooy bi la sharia sant mu bokk ci arkanul islam islaami alxams julli tawxiid moom mayoon mawdo seydi alxaaj malik radiallahu anhu fekk boobu tubaab yi seen caay-caay mooy yeggoon ci bëgg di embêté Maodo bu heure tàkkusaan bi jotee Maodo war jiite si ci jàkka ji ñu wut ay tëggikati sabar pour ñu ñëw ba ci wetu jàkka Maodo di fa tëgg seen sabar pour embêté Maodo keroog ba ñu njëkkee commencé yëf bi nag Maodo jiite tàkkusaan ba noppi dégg jàkka ji yépp ànd na ku ne na waay waay Maodo ni waaw ana loo xew ñu ne ko kenn xamul loo julli waay ndax sabar yi fii Maodo ni xanaa yéen ko dégg man julli naa ba noppi yëguma ni sabar tëgg na waaw waaw kooku julleem julli tawxid la bokkul ak julli taklif waaw waaw mu tax ndeysaan abdullahi ibnu zubayr ma lay xamal ni bañ nit baaxul waaw loolu xëy na beneen cours bu ñëwee dinañu wane la ko commencé ca sunu boroom ba ñi mujj ñëw ci jamono kenn ku nekk fan nañ la sonale Abdullah ibnu Zubayr wallaay ndeysaan moom day xam nga ko rek yii yëpp dama ko tàmmul nag tamuma kaala de muy julli ndeysaan ni ko am na nit bu nga xam ni moom rekk la bañ bàyyi ko ba muy julli fi muy sujoote mu dem jël ndox mu tàng ñëw sotti ko ko mais ndeke yëgu ko bi mu sëlmalee lay soog a yëg kanam geeg yennati ci yaram wi di pepspati mu ne ana lu xew ñu ni ko dafa am ku ñëw tuur la ndox mu tàng mu ni ko ndax concentration bu ëpp loolu mooy tax di natt yëf yi comme ni ko yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxe ni xëccoo bi matu ko li yàlla wàcce ba tax ñuy xëccoo la mu denc te wàccagul moo ëpp li wàcc xëccoo bee tax nangoogul mu wàcc ndax yàlla benn xëccoo rekk moo ko neex mooy bi am ci almala al aala boobu nag neex na ko te moo di asmaam yi ak kenn ku ci nekk service bi nga yor bu ñu dee nekk di xëccoo xaabidu xaabidu bëgg ni waaye diw daal warul am dara nañ nag affaire mu bañ jot dara te bu ko bëggee def bansetu moom it du ci d'accord ni ko jaamu yàlla la comme ñëpp dafa war a am comme ñëpp bu ko defee ñuy xëccoo nag pouvoir boobu kan la ci yàlla di mujj a jox priorité moo tax yi sunu mbokk yu bari di soow te moo indi coow lu bari li tax ñu naan l'islam lii l'islam la les islamistes fii dëgg appliquer sharia nangam nangam gis nga sharia yàlla bindu ko ci lawxul mahfuud mukk

motax nga gis fi lawhin mahfoud singulier la lawh mahfoud singulier la mais الواح المحو والإثبات جمع لا بلوريال لا مدسنك لما ني دون سيت لا لا ديفيرونس انتر المحو والمسح

donc man ne supprimer wu ci écran bi mais fekk supprimer ou ñu ko ci bir fichier bi mu ngi ñu garder Motax li ñu supprimer ci écran bi moy mahwu bi la ñu supprimer ci fichier bi moy masxu bi masxu boobu nag la yàlla assureel yonent yàlla isa ñu tudd ko almasih effacé nañu définitivement ay bakkaaram mais keneen ku mu mën a doon nag yàlla mën na ni effacé leen wala supprimer leen or que fa des mu nga fa des seulement suturaam mooy yegg ci alkiraamul kaatibuun buñ ko xasee ba supprimer ci tableau bi alkiraamul kaatibuun dootuñu am tasarruf ci bàkkaar bi ci boppam sunu borom rekk a ci am tasarruf mu baax waaw moo tax li tax mu tudd leen alkiraamul kaatibuun moo lay xamal ni mer du tax ñu bindal nit bàkkaar waaw fii nag moom koo mer rek ni yàlla na nga torox waaw te xamuloo ndax yaa koy jëkk a torox wala déet waaw waaw ay ca bokk dama am gan moom sëriñ bi moom bëccëg bëccëgu yonent bi la ñi mën a ñëw ci guddi gi dañuy ñëw ci guddi gi ñi nga xam ne ñu ñëw ci guddi gi dañuy ñëw ci bëccëg bi parce que loolu tamit mooy alquran alquran yàlla dafa wax ne li nga mën a def ci guddi bi da koy def ci guddi bi loo mënul def ci guddi bi nga def ko ci bëccëg bi gan bi mooy sëriñ Habib bi sëriñ Mansour ñu euh, ngi ànd ak sëriñ Cheikh Omar Sy bu Seydi Jamil euh, ki ki àndal loolu ci ginnaaw mooy Serigne Cheikh Omar bu Seydi Jamil ak Serigne Habib. moom daaw it ñëwoon na. Euh, moom dafa séddoo Serigne Moustapha Serigne Moustapha séddoo ko. Euh, tabaarakallaahu loolu dafa am solo xam nga. Euh, tey nit ku sincère la bu ñëwee boo déggee kàddoom da ngay xam nit ku sincère la depuis mu commencé di ñëw ci jotaayu Serigne Moustapha waxam yi dafay cohérent dafay nekk li mu waxoon démb du ci sangé virgule te cofeel bi loolu dafay nekk lu dëgg loolu dafa baax ci famille famille bu ñu gis loolu Eh, dafay nekk luy jëriñ famille bi di dundal eh, cofeelu njaboot yi gisoo bi mu wàcc laata sëriñ bi di ko gis nit ñi tàccu nañu parce que nit ñi kenn moomu leen benn ñu timis la rek wala ñu tàkkusaan la te moom eh, timis lañ ko tàkkusaan nañ ko macha allah timis ak tàkkusaan mooy ñu wax li ngay def bu baax ñëpp biir ko wala ñu jàpp seen njàngu ci suuf te xam nañ ne ku baax la ci biir ku baax la ci biti macha allah moo tax fu sëriñ Moussa ma sa nekk rek bi waaw te parce que li ñu bokk dafa bari li ñu bokk dafa bari ñoom euh, seriñ Babacar Sy rek boole leen Serigne Mansour rek boolewu leen Serigne Cheikh Tidiane Sy boole dañoo bokk génération bokk même façon bi ñuy xalaatee loolu dafa am solo soo xoolee bii façon accolade am na lu mu lay jox. waaw macha allah. sa fort waa image yu kii la ndeysaan. ma ngay jooy Serigne Habib mi ngi jooy. waaw image yu émouvante la image yu émouvante la. parce que cofeel la cofeel la. arab yi dañu wax ne lu nekk ci xol. loolu nag sa li nga wax mooy li nga wax ne ñoo bokk génération ndax xamante na dañu xamante dañu xamante xam nga Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu dafa am lu ko yàlla defal moo feeñ fii kii sëriñ bi akolaat noonu mooy Cheikh Omar Cheikh Omar Fouti yu bu Seydi Jamil mooy frère u sëriñ Mansour Sy Jamil waaw waaw moo kii mooy frère maa ngi dégg ñu ñu bala moo sëñ bi reprendre discours bi muy wax yaa ngi ndeysaan reetaan di di taaj di euh, dafay dafay euh, dafay dafay beesalaat alxuraan ci dégginam macha allah mel na <laughs> ah, bu dikkee dañ koy bàyyeeg yëfam موم سرين حبيب بيلي اك شيخ الحاج عمر بيلي بربي نيوم نيوكو موم وا فتبارك الله سيق كو غوري ريك مو ام سولو وا ولتخ اك لو مانا ام تي كير بولا غوري doo dem fu sore te li gën a neex ci àdduna bi mooy nit ku dul weddi boppam te ñoom ñaari ñi ci suture yàlla weddi seen bopp te yàlla bu ñu weddi seen bopp ila yawmil qiyaamati kon nag jarul gi guddal ñun ñoo fanaan ak yéen big xëy doon liifantu tuuti ah waaw day xam na tabaarakallah ñu ngi nekkoon ci alfarq bayn almahwi walmasr nga côté téye ah, ok maanaam lan moy différence su effacer dara ak supprimer dara waaw ma wax len ni la ci sa portable léeg-léeg nga jot message wala yow nga yone message amna na benn signe buy nek ci kaw bo xam pour supprimer la nga beu signe bi mu jox la ñaari baat supprimer wala annuler waaw boo ko bëggee dindi ci écran bi nga jox ko supprimer bu fekkee ni da nga garder ko nga annuler pour mu garder le texte mais cela n'a rien à voir ak journal cela n'a rien à voir aussi avec li nga jël fichier pour mu garder le ko sunu boroom yooyu yëpp mu ngi ko am ci suturaam am na lu jaam di def du nangu malaaka yi gis ko moo tax buy am du ko def ci écran bi daf koy daal di transféré ñu def ko ci fisier bi ku dul moom doo ko gis pour am sutura boobu nag متخون مكني دي ñi اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح pour mu defal la sutura boobu ba ca sitru sitrul arsh مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول llahi la yuqdaru alayna والله من ورائهم محيط waaw moo tax wallahu min waraihim muhit boobule moom lañ leen wax biig ci gàmmu gi nii moom sunu borom moo moom kamalul muhit mais mu sédd yonent bi nag sharaful muhit ah gàmmu daawu jéeg moom lañ leen doon wax ni yonent bi ci yàlla may gum ko may pour mu surveiller pas-pasu jullit yi ñu ko dénk iblis dinay yabal ay nitam pour ñuy agresser roxu jullit boobu te buñ ko teelul gis pour ñu intervenir mën nañu ko lor ba pas-pasam jaare fa moo ci sharaful muhit boobu ñu ko sédd écran de surveillance bi topographie exactement jullit bi ci ban zone la pour mu dépêcher fasl ak pour ñu intervenir pour mën débrassé ci yi koy agressé ci saraful muhit rek ndax wallahu min waraihim muhit motax bu la nexé bokay jàng man nga dem ba ci wallahu min waraihim muhit nga bolé ci malakul maut بولكي الكرام الكاتبون ولن يخنق بول لنجي والله من ورائهم محيط يلا رك لي نيخ نوم نخم كي يو دار موتاك سي تريز امبورتان دي كو جانغ وينك واو حزب البحر بوبولي بوكولك حزب البحر بي نيو جانغ نيو man bi ma ci yor Seyduna Adam moo ma jox te ki ci nek seede mu ngi tok ci tànt bi wax ma hizbul bahr bi code bi code bi ak code yooyu ci en huruf ci biir taxi bi fi lañ leen war dugal waaw waaw waaye bu fekkee ni amuloo degré xisbul baxri boobu te amuloo garantie boobu دنجي وح اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعل لنا من امرنا فرجا ومخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب واغفر لنا ذنوبنا وثبت رجاءك في قلوبنا حتى لا نرجو غيرك يا الله ديكو نيان نون ñaan بو جوتول boo حزب البحر بي سيرتو بو بو, بو اوفيسيال bu officiel nga xamni ni code bi ci am solo ci yoon ci yàlla adam ci lañ ko calqué waaw mu melni kon nak comme serigne moma ñaanoon ñu dugg tuuti ci biir baat bi masxu bi nag mooy Isa bnu Mariam li tax ñu defal ko masx ci dunub yi ba tey dafa dellu ci ñaan bi ñu leen wax démb mooy li ñu leen wax ni ñoom chrétien yi nangu gi ñu nangu ni Isa ibnu Maryam moo nekk ci croix bi mënul dëppoo ak ñaan gi Isa ñaan te mooy baatu wassalaamu alayya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubaatu xayya moo tax baatu wa yawma ubaatu xayyan salaam bi ko ci yàlla garantiral moo tax mu nekk almasiha parce que yàlla du ko dekkil muy dekkaale ak bàkkaar ndax salaam bi ñu ko assurel ci yawma yubaatu xayyan waaw bokkul ak maxwu bi nag maxwu bi ci tableau yi rek la alwaaxul maxwi wal isbaat nekk 360 tableau moo tax bind bu secrétaire bi ñu confié alwaxi bind bu mu bind bind ba la ca am mais bu ñu koy supprimer du moom moo koy supprimer ndax du ko yëg waaw sunu borom mooy dem waaw waaw waaw mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. def ko ci moom transféré ko ko Et effectivement. Uh -huh. Mm -hmm. Mm -hmm. mais buñ ko xamoon foofu rek seeti Isa bu desoon ci ñoom ñu yëg ni yahud al asxar yoluuti la te mooy Judas Iscariote buñ ko xamoon rekk dem seeti Isa te boobu ordre bi ñëw na ba noppi pour que ñu xañ leen dootuñu ko gis waaw ah, lu dul ñi amoon pas-pas ci moom ñu ressuscité ko pour ñoom waaw ah. moo tax ñoom seen mbir dafay yéeme waaw moo tax léeg-léeg dinañu am seeni اي مقامات كن كوتي ندفع ام اي مقامات جنو لا اكورد تي سبير دين حق تي سبير نبوة امنا مقامات يعيسى ابن مريم ام كوكو بغ يوتيليز تي دينم تا امين ولوكو تي اوتوريزياسيون محمد دولا سيرفير سيرفير mais am na ñu bokk ci njabootu yonent bi léeg-léeg ñu am luñ leen jox duñ ko mën a utiliser fekk amewuñ ko ci autorisation Isa bnu Mariam kooku mooy seen pacte de responsabilité bi ñu bokk waaw waaw nangam ci maqam Muusa wi nangam ci maqaam Isa wi nangam ci maqam Ibrahim yi nangam ci maqaam Muhammad yi bu ci ne ak boo koy appliqué ki ñuy may pour mu defal la signature bi waaw looloo tax seen way juru bopp fa tabarakallahu yéen ñi parce que yéen ñaar ñii la jur man taalibeem la waaw muy Cheikh na Tijani moom la indi ci بل وزي بل وزي عن عن هذه الأجور تكرما بين الرجال وعم بالتيجان هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف ملائك بسطوا إليك أكفهم بتفاني بفهمه الداخل من بلوذ عن هذه الأجور كن كنا كي يلا دقلة من غكو دف كنن دفكو تسين دقرة بايدو منا طولو باسكو ني أم الأجر العظيم bokul ak ñi am al ajrul karim lu dëgg ñi am al ajr al karim ñu ak ñi am al ajrul kabir waaw degré yooyu moo jara seet te ni mu amee ci cadre nubuwa non la amee ci cadre wilaya لولو تخ سيد شيخ دي واخترنهم بل وزع عن هذه الأجور كوتي وراء أم أجر عظيم أم أجر عظيم كوتي وراء أم أجر كريم أم أجر كريم كوتي وراء أم أجر كبير أم أجر كبير فا dimension yi nekkul بن سي est très important waaw ba ci werd wi ak wadifa bi waaw bu moo ma ko ñaan il fallait quelques minutes rek waaye ma jox ko kàddu gi ah, ah, ah, wallaay dinaa la ko jox <laughs> non sëriñ gis nga dafa am lu nga xam ni ci xolu njaboot ak xolu borom soppe sama kàddu miin nañ ko sax waaye yow sa kàddu dafay dellu ci li Muusa waxoon sunu borom ba ko yàlla di yónni ci firawna waaw tam ni ko wa axi haarun huwa afsaxu minni lisaanan waaw fa arsilhu maay waaw waaw waaw déedéet bi yàlla waxee Moussa mu dem ci Firawna mu ne ko doom ma booleeg Haaroon ndax mooy gën a placé sax ci kàddoom dana am lu mu man def ci Firawna donte sama kàddu am na dimension mais man ci kër Firawna laa yaroo moo tax daf may xoole rek ku mu yar waaye bu dee Haaroon xam na ni yaru ko kon lam koy wax dana ca bàyyi xel kon nag axi Haaroon mm-hmm. damay jéggalu ah, di wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dafa am loo wax léegi lu am solo. ni nit du weddi boppam. te man dama ragal wolof. dafa am baat bu ñuy tuddee conclusion hâtive Ta moy lima ma dégg suñu mag Serigne Mansour bu suñ pap Cheikh dan wax ni wolof du macc tangal da koy yëy ndax yakamti waye nit du weddi bopam li dajé yiw la te seigne Ahmed si sarak day faral di wax ni ñetti daraja ñoy couleur jataay bi ci ñëk amna na jataay yoo mbooloo la laaj te moo di tey jii su parti politik di woote ña fa teew nu ñu mënti toll ci kilifa su melul nii duñ naan dafa échec waaye g buy woote bu fa àdduna bi yépp daje woon te huit chefs d'État yi ko seq ñëwuñu dañ naan dafa échec waaye nit buy ngénte wala muy takk soxna wala mu am xew-xew bu tiis bu ko ay mbokkam séqul bu fa àdduna bi yépp daje woon ku nekk dana laajte lu xew fii nag macha allah ñett yépp fi daje fa tabaarakallaahu mbooloo maa ngi fi macha allah yàlla na jëm kanam kilifa yi ko war a séq nañu fexe ba ci Sénégal ñu génne fi kilifa bu ëpp maqaama suñu bàjjan umm wala suñu mag ji di soxna faat kinne ak ñeneen ñi ñu àndal ñépp ak yéen ñii yow ak sëñ Habib bu dee mbokk mi fii ñetti nit rekk a fi nekk sëriñ Moustapha Sy Jamil sëriñ Mansour Sy borom daara ji Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si xalif général di Tidiane te sa mag alaaji Mansour daan na faral di ñu wax naan gis ngeen kër gi lu fi mënti xew yi fi rafet bari na dañ koy nettali kër goo fa dem boo demee kër sëñ mu safa nga fa fekk sëñ Mansour di nga fa fekk sëriñ Cheikh di nga fa fekk sëñ Abdou boo demee kër sëñ Mansour di nga fa fekk sëriñ Cheikh di nga fa fekk sëñ Moustapha di nga fa fekk sëñ Abdou boo demee kër sëriñ Cheikh di fa fekk sëñ Mansour di fa fekk Moustapha fa fekk Abdou loolu dañuy ñaan yàlla mu sax daaw dama ni woon sëñ Habib day yóbbaale sama kaddu waaye am na ñoo xam ne bu ñu ko déggee dañuy naan fekke bu niroog wuute moo tax si ñu di la wax ni man ak sëñ Habib bi macha allah tey jii buy tukki man lay dénk caabi këram man mii su may tukki moom lay dénk sama caabi kër doy na ma sëkk waaye ñun dañu lay ñaanal yàlla ñaanal la yàlla li nga yéene ci sa mbooloo mi li nga yéene Sénégal yàlla dimbali la ci jàppale la ci ñun ñépp ñu ànd kook yow am na benn mbokk mu neex boo xam ni benn bés sëñ Mansour am na lu mu ñu santoon lu xaw a xat ku nekk naan mënul nekk suñu mbokk mi Ablaye si la ni a ah, ñun de xamuñu lu mën nekk ak lu mënul nekk waaye bu ñu sëñ Mansour sante lii bu ñu ne woon dem leen indil ma weer wi dañuy xalaat tëb ba fajar waaye duñ ko ne mukk mënuñu ko indi moo ñuy gis yërëm ñu ni ñu toog leen noonu lañu fas yéene nekk ak yow loo ñu wax ni lii laa soxla duñ la ni mokk lu mënul nekk la dañuy ànd di tëb ba fajar nga xam ni ñiikat sonn nañu nga ni toog leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ngeen baal bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan ngeen nangul ma sama ziyaara waaye gars yi nangul leen ma waay waaw ñu nit nangul lañ leen yàlla nañ yàlla boole nangul maa ngi jiital sama nuyoo ci sunu mag sunu soppe sunu xarit sunu kilifa Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha di ci teg sunu wayjur wii toog di soxna umm bu Cheikh Alxaaji Abdu radiyallahu anhu ak sama yaayu bop sama soppe sama xarit soxna kinne li Serigne Cheikh Omar wax man lay yobale waye wala taziru waziratun wizra ukhra daqar du um ku ko moccul te dafa am ben pacte buma signé ci àll bi dama wax wa Europe yi ni len Serigne Moustapha nekkatul responsable moralu Moustarchidine waaye man Habib maay responsable Moustarchidine wala Moustarchidaat ma ni leen mu Serigne Moustapha moy baay bi Serigne Cheikh ay maam ji waaye maay responsable bi léegi yéen ñëpp man ngeen amal affaire parce que yonent bi dafa waxoon ni ana min allahi wal muminuuna min nii maag yàlla yéen ak man a waaye yéen it maag yéen a moom maag mooma wax na dëgg ñun si juddoowuñu ci kër guy dellu gannaaw wala kër guy daw responsabilité man si fi ma yaroo mm, euh, euh, euh, ragal amu fa ñu ngi lay dañu ñëw rek tey والله العظيم بقول رك نيو دغلو سي لا بيماي بالله والله تالله دا ما ولين واخني دايره يا ماي ما ني تك ماني لاج لين ما فما جيم ماك سيرين شيخو ني ني ما سيفا nga جيم ماني لين ريت داماي ديم تيا دارال با pour rendi ji shaytané ndax digënté daaw ak ren lu né xajna ma bëgg ñëw rek daaw ba dara xew fi la fi nekkoon na fi nekk tey ba ëllëg ñoo moom waaw waaye dañuy ñëw rek beesal ak yeesal ak wax la ni say rakk ngi say njaboot ngi say soppe ngi say xarit a ngi wax leen ni kër gi dara amu fi li ngeen gis ni moom rek a fi nekk Cheikhoo ngi nii Habiba ngi nii Serigne Moustapha ngi nii njaboot gaa ngi nii li ci des rek mooy ñaan yàlla ni mu ko waxe wax na fi ay code wax fi ay secret wax fi ay wax fi ay gaañ yi ñun soxlawuñu code yi soxlawuñu secret yi comme yaa yor code yeeg secret yi code code décodeel ñu rek ñun ko ah, ah, del ñu rek ñun dal si. ñu de connexion. waaw ah, <laughs> wax na ko nee na partage de connexion ñun daal partage de connexion lañ soxla fa mu nekk yooyu yëpp si soxla wuñ ko waaye nu ngi ñaan ni ko sëriñ bi daan ñaane sunu wayjur di wayjuram nga xam ni moo ko jur ñun sëriñ Cheikh a ñu jur ni ma koy waxee wax na ko léegi daf daan wax ni lay wi gàtt na foo jëm Tiwaawan looy wuti Tiwaawan damay màggali ci tax ñu bind ma te mooy Muhammad ci ndigalal kan Seydil Xaaji Malik nee na loola ak njabootam ku ci amul dara dootu am feneen dara waaye li ma leen waxoon rek gis nga lii wallaahi alazim bu doon ngelaw luy ñëw rek di naaw naaw na yàgg na lu yàgg dëgg la mag ñee ci jàpp téye leen bu leen ci kenn jëlee واخنا لين من 1 plus 1 égal 2 من خاوما اي مسامبا ما ديمبا لا خلاقل نيب خامناج ما تي من لوما گمول دوما كو واخ فوما گمول دوما فا ديم ناخ ما موم سما بوب بيماي نييو سما اوتو لا يور سما اسانس لا تي ديم فوما نيهخول دوما فا ديم كي ناك يالا مكو بگلو موي سما ماك دي سما خاريب تا دارا جا با ليغي واو ماغي لاي سيرل ني سيرن بي mboolem njabootu Moustarchidine bu nekk ci àll bi moo xam Europe wala États-Unis wallahi aladim du ñu dem fenn te du ñoo ñëw nañ ñuy teeroo moo raw ni ñu lay teeroo dinañ ñuy yaatal jox ñu suñu cër ba jox ñu lu ñu moomul ñi ngi la koy seedeel di la wax ni ñëpp ñu ngi leen di gërëm ba ci réew mi yàlla yàlla fay leen dama wax ni njabootu Moustarchidine tur bi la waaye du ñu njaboot gu beddeeku njabootu Seydi El Hadji gu nekk fii la waaw si nag sa maam dina la jàppale sa baay dina la jàppale Seydi El Hadji Malick dina la jàppale waaye dinañ la jàppale parce que di nga ñu gis dooweet mukk na la wóor ni foo geesoo di nga ñu gis la taalibe ba ñaanaloon sëriñ ba laa lay ñaanal taalibe bi dafa ni sëriñ yàlla na nga dund téeméeri at ak ñaar fukk mu dem banaan ko amin mu ni ko te foo geesoo gis ma waaye yow it na nga dund téeméeri at ak ñaar fukk te foo geesoo rek gis ma tabarakallah mbokk yi yaakaar naa ni li ngi sant ñëpp di gërëm ñépp amuñu kàddu fii duñu fi wax duñu fi jëf di ñaan ku fi ñëw yàlla yàlla faj sa ajo bàkkaar boo am yal na ko yàlla sippi feber bo ëndaale wala nga am kuko am yàlla ko yàlla safara yëgal nit tiawon ku yàlla na mu la faj sa aajo do ñëw ci gamu gi Seydil Xaaji Maalik a ko wax wa mawliduhu bihi sharafun wa xiiru fa fi taadimi in jaaxu sujuuni fa in jaaxu sujuuni fi taadimi wasalaamu aleykum wa rahmatullah maaleykum salaam wa rahmatulah Oustaz lii am na solo trop. waaw tabaarkalla mooy li ma la wax sànq nee naa la eh, moom wet weddi boppam nee naa la moom wet weddi boppam. te dafa mel ni mi ni force sëriñ bi pour mu ñaan ko dañu wax ne jaanu ñàngoor soo bëggee mu bat mu matt te bu mattee lor da nga koy bal mu ngi koy bal pour que sëriñ bi ñaan pour yàlla décanter situation yi ci barke yonent bi ñu fanaan ci guddi ak bëccëg bi ñu yendoo yàlla yàlla décanter situation yi euh, discours bi discours la bu nga xamante ni bii bu extraordinaire la ci doomu daara yi ah sëriñ baa ngi waxaat nit ñi bég nañu benn façon bég bu nga xam lu ci dolli ku ëpp te lu ëpp baaxul ah naaj na li doonoon farata yëpp wax nañ ko biig ak tey dama ko ñaanoon pour mu joxe ñaan nag waaye mu xaw ko lànk waaw <laughs> ah. ah waaw comme nee nga ma décoder leen ci ban ci ban cadre <laughs> yow yow daal foo foo baax na boo nee dana baax sax baax na. réseau boo branché réseau boo branché rek. ah kon nag xanaa bokk. te ñu jàng fatiha rek. te jàng li ila fi qurayshin jàng ayatul kursi jàng falaqi ak naasi tëje ko salaatul fatihi def ko hadiya yonent bi ci barke mag ñu baax ñi ñu yaakaar te mu tudd leen ñu ñaanalante ci ñun ñëpp dugal ci sunu bopp dugal ci ku ñu am ku teew ak ku teewul waaye nag yow mi yaay tëj nag waaw waaw ñu def ñaan bi incha allah ah waa après incha allah ok bismillah tabaarakallaahu waaw kay dafa am lu ma la bëgg ñaan nag waaw ngeen déglu ngeen déglu ngeen déglu ndax mbokk bi ñu doon wax ni dafa war a tuub ndax ñëw na ah waaw na ñëw <coughs> sëriñ Habib nga tuubal ko maa la ko ñaan tey waaw dégg naan euh, discours sëñ Habib Sy bi muy discours boo xam ne yaa ngi ci woon mu wax dëgg yàlla bëggal taalibe yi. waaw xam nga euh, Serigne Habib. wax naa la bi mu ñëwee nee naa la. nit ku dul soppeeku la. ci grammaire arab dafay dafa am lu ñuy wax maa laa yan sarif mooy loo xamante ni bii loo ko mën a booleel forme bi mu yor rek lay lay yor. sëñ ma sëñ Mansour wax naa la bu bitim réew ak lépp gis nga tey ji engagement bi mu jël. dañ doon wax Serigne Moustapha si responsable moral daayira Moustarchidine wal Moustarchidaty mm-hmm. te ji gis nga nee na Serigne Moustapha nekkatul responsable bi moom mooy responsable bi mm-hmm. pour wane ne impliqué newu ci biir ak ci biti mm-hmm. comme ni mu nekk ci deret noonu la nekkee ci pas-pas donc loolu dafa am solo ci ñi nga xam ne ñoo dégg wax bi mooy def ko ci sa gaañ yi bala moo koy tuubal dinaa wax ni ñun ñëpp nañ wax alhamdulilahi rabbil alamin imaamu suyuuti yi dafa bind ni jataay fu ñuy tuube ku ko fekkee di nga am yoolu ñeen fukki julli yu ñu nangu te benn julli buñ la nangul aljana la kon gaa ñi tey seen bonbongu gàmmoo ngi nii ku ne di nga am yóbbal ndax ku ne ci ñun am nga yoolu ñeen fukki julli yu ñu nangu moom nag mi ngi tuddoon Issa Charles Charles moom kenn dootu ko werante Issa Charles fii nga toog tuddatoo Issa Charles ñëwal yow itam noo tuddoon ngeen yëg ni fii ngeen toog يو إسا شارل تدتو إسا شارل تدنا على الشيخ سيد محمد المصطفى ميتوك يو désormais tudde to ni nga tudon tudde na la على صغن si mi ngeen yéene fii ngeen toog ni yéen a ngi jóge ci kaafir jëm ci jullit yéen a ngi jóge ci lëndëm jëm ci leer yéen a ngi jóge safara jëm aljana ngeen déglu kàddu yi baat yi leen di wax bu ñu koy wax ngeen koy répété wax leen ashhadu an laa ilaha إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Serigne Moustapha soxna Kinde su ngeen déwon tay jii dem aljanna dugg ngeen ci diiné ji soxna Kinde Serigne Moustapha defaaleel na mbolo mi yépp ndax l'islam dafa suñu amee gan teral ko loolu la fekk ay maamam moom la fekk ay baayam doon ko def kon man maa ngi teg ci teginu Serigne Moustapha am boobu soxna Moussa la la ko jox am bii soxna Kine la ko jox am bii Cheikh Omar la ko jox Eh, fii ngeen toog nag bu tisbaar jotee léegi da koy julli bu tàkkusaan jotee dangeen koy julli bu timis jotee dangeen koy julli bu da ngeen koy julli ak chafa witr ngeen teg ci bu ëllëgee ci suba yi dangeen koy julli koor gii ñu génn jëmaat ci buñ ci yàlla yóbbu gàmm te amu leen gànt da ngeen koy woor bu ngeen amee lu ngeen mën a génnee asaka da ngeen koy génne bu ngeen mënee dem màkk te ñu woo leen da ngeen di dem màkk ku la dugal ci diine mooy sa baayu diine ku la dugal ci tariqa mooy sa baayu xaqiqa Serigne Moustapha mooy càllale gi dafa ma waxoon ma wax leen moom mooy seen baay bu ñu leen nee nu ngeen tudd neel Serigne Moustapha si moom laa tudd mooy sama baay soxna Fatimatu si moom laa tudd mooy sama baay soxna Fatimatu si mooy sunu bàjjen wasalaamualeykum. dañu wax ni. dafa am ñu bëgg jël werd bi. kon nag ñi bëgg jël werd bi ñu tàllal am na ci ñu nekk fii am na ñu nekk ci Europe mais ñu ngi nekk en contact ak ñun fii ci tente bi kon nag ñi ko bëgg a jël yëpp nañu tàllal seen loxo fu ñu mën a nekk fil aalam ñu tàllal ñu jox leen ko te ànd ko ak sunu ñu sell ñi le ñu ñaanal leen yàlla yàlla saxal leen ci incha allah kon nag ngeen tàllal bismillah كذلك حجاج جحاج قادة فبدر وبدر ثم بدر لمقتري هم المرتدى موي غورجي مورتال كبي عبد الاله الحمد لله رب العالمين لا نيي واخ نдах ньоني دوجو سي الاسلام سانسو الاسلام لا نيو تاي ماما بو خامتيني بي نيغي نيوال دولي الاسلام ay nit ji bàbbikoo ci àll bi di ñëw di ci lislaam mooy wane lislaam rek ay dëgg beneen bi ci des mooy sëriñ bi dégg-déggam ci lislaam bi ci guddi nee na d'accordul moom ci terrorisme d'accord ci te wane na ko parce que dañuy wax ci àdduna bi ne kilifa yëpp nañu wax ak seen njaboot moom waxtaan na ak njabootam wan na leen ni jàpp nit jël paaka teg ci putam rendi ko wala takk bem bu explosé wu ba noppi samp drapeau bu ñu bind laa ilaha la nee na loolu c'est contradictoire donc kon moom njaboot yi topp ci ginnaaw jël nañu message bi tey jii xam nañu ne ñoom du ñu bokk ñuy dem Syrie du ñu bokk ñuy dem feneen alhamdulilahi rabbil alamin beneen bi ci des mooy leçon yëpp tey daf ko delloo ci julli daf ko delloo ci julli ki yàkkam ci julli te bàyyi këram njabootam di torox wala mu am employé di ko toroxal kooku la sëriñ bi envoyé message bi tey jii moom kooku moo war a dégg mooy patron bi patron bi ak patron bu mën a doon di jaamu yàlla ba noppi sa employé di torox ñooñu la sëriñ bi adressé message bi tey jii loolu moo tax ma doon yëngal sama bopp xam ne bu ko nit ñi déggee li mu wax noonu bu ko nit ñi déggee réew mi day nekk réew mu jëm ci kanam a noppi muucu deretam loolu dafa metti moo tax julli ba noppi yàlla jël ko julli bi taxañ la ko jox la ko moo tax mu ne nga bàyyi xel faatiha bi ngay jàng nga tuuse sa sek ci bismillahi rahmaani rahim mbaa alhamdulillah mbaa rahmaani rahim mbaa maliki yawmi diin donc loolu mu wax noonu mooy lu gën am solo euh, patron yi nañ ci gën a bàyyi xel borom kër yi bàyyi ci xel ñi jël ay nit di leen liggéeyloo bàyyi ci xel ci loolu parce que bu ñu jógee ci juddu yonent bi nag normalement war nañu yëg benn changement ci suñu bopp loolu joxe na ko beneen message bu fort bi mooy Tiwaawan tey ji retrouvé wu na ku xam diggante Seydi Jamil xam diggante Serigne Mansour xam diggante Serigne Cheikh Tidiane Sy ñoom ñetti njaboot yooyu ñu bokk benn tànt ñoom ñetti njaboot yooyu ñu bokk benn tànt loolu dafa mu nekk lu mot a bàyyi xel su ko defee ñu ngi ñu ngi fàttali nit ñi ne nit ñi dafay lire entre les lignes biir tànt bi tey jii nit mën dafa jàng bàjjenu bàjjenu seen bàjjen moo toog muy Cheikh El Hadj Abdoul Aziz représenté Serigne Babacar Sy représenté Mame El Hadj Mansour représenté Cheikh Seydi Hadj Cheikh Seydi Hadj Abdoul Aziz ñoom ñett ñu toog représenté Seydi Djamil Serigne Mansour ak Serigne Cheikh Tidiane Sy loolu nit mën na faa jàngel lu bare bare bare tabaarakallaahu juif xam naa ne sant yàlla lay doon ñaan yàlla mu maylu bu déwénee bu nuy ñëw yëg ni yokk nañu am na benn baat bu ma bëgg bàyyi loo xel mooy li mu wax moom Serigne Moustapha wane ni li indi jafe-jafe bi ci penc mi du ci société bi ci ñun la nanu féexal sunu xool rek yàlla décanté situation yi code bi aussi wax nañ mu ko ngir taalibe yi mu mun leen koo baaxee waaw loolu beneen beneen beneen domaine la mooy domaine mystique bi xam nga ñoom ay ay nitu yàlla lañu nitu yàlla dañuy am affaire mystique bu ñuy kiwee xam nga dafa tudd xisbul baxar yi xisbul baxar yi benn ndigal la ci tariqa bi bu ñuy may taalibe mu koy jàng Euh, imaamu Chadali moom la ko yàlla baaxe Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Chérif jël ko ci imaam Chadali moom nee na am na beneen bu supérieur wax na ko ci biir enregistrement bi xam nga ñoom noonu la ñuy jàngale da ko wax toogaat tuuti doo ko joxe bi nga xamante ni mooy bu valable bi fi mu nekk nii boo génnee ni ci biti xale yi commencé nañ ko di ko tari parce que dañuy dégg fi muy waxee moom alhamdulilah ak TFM macha allah nit ñi dinañ ci mën a bénéfice u yàlla ñu ko yàlla may ñu jëriñoo fin bi foofu lay amee ak ay invité Oustaz nan ngay dénk taalibe yi ak ñi ñëwoon gàmmu si leen fii ci Tiwaawan ñu ñaan yàlla rek xanaa mu fekkeel ñu ko ay déwén yi déwén ñu koy fekkee ba pare dénk chauffeur yi ñu def ndànk delloo njabootu jàmbur yi nag ndànk-ndànk loolu la ñuy gën a ñaan macha allah parce que boo jógee ci yonent bi loo def lu dul dal rek yàq nga ko macha allah am na solo Oustaz Mor Thiam ngeen xammee ko ci Télé Futurs Médias aju mu ñu nekk muy rajo Futurs Médias

fanweeri at ak lu ko ëpp boo gisee gis gars yi yëpp gis également Alaaji Assane ak ña nekk fële ca champ des euh, courses fële ca plutôt nga xamante ni moom mooy zawiya Sidi Babacar Sy si Alaaji Assane asan ni def rek mooy jox la mi nga daal di plateau bi nga xamante ni seen télévision Futurs Médias moo àndoon ak yéen pour couverture gàmmu édition 2015 mbokk yi sant di leen gërëm di rafetlu seen ànd ak TFM asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf أبا الفضل ما لي غير ذكرك من ذكري ولا غروة في إرث الوليد بوالد كما قال هذا النجل مداح من ودي كذلك حجاج جحاج حقادة فبدر وبدر ثم بدر لمقتدي هم المرتدى موي جورج مرتالة كبه عبد الإلهي muy góor gi Ablaye Niass wa Cheikhu kan muy maam Abdoul Hamid kan ñooñu ñëpp manazilum taalo manazila farqa